asalaamaaleykum wa rahmatulah sant yàlla sant yonent bi du nuyu sëñ Mountakha Mbacké du nuyu ñëpp tur bi Serigne Abdou Lahad Seck lañ koy wax dëkk Touba du doomu dëkk bi yaroo fi màgg nekk si kuréel bi ñuy wax Sénégal 2035 avec ministre Mame Mbaye Niang Touba yàlla fa def ñu dëkk fi yaroo fi jàng fi alxuraan euh, di doomu dëkk bi yàlla def euh, suñ njaboot nekk bi suñ sëriñ nekk bi suñ lépp nekk loolu moo ñu fi indi dañuy faral di fi nekk lu bari nag si dëkk bi. li tax ma bokk si euh, biñ ko taxawalee biñ ko taxawalee dañoo ñëw seet si ma ma xool mu doon nit koo xam ne ku. ku ma war a mun a àndal la si ay jikko mu doon nit koo xam ne nit ku nit ku yiw la euh, muy may doomu Ngor Almadi itam dëkk fa yàlla def tim euh, ma soxla woon maire Ngor euh, biñ demee ba si biir yàlla def mu ñëw ñu waxtaan ñu jël koo xam ne ku tudd Antu mu représenté wu au niveau de Ngor si Sénégal 2035 te gis naa ne tim ànd bi ñu ànd xam naa ne lim soxla war na ko mën a am si biir Dakar loolu moo waral suñu ànd moom mën na yomb parce que biñ koy commencé yàlla def na président de la république woo na ko ba mu ñëw mu tàllal ko ay loxoom mu ñaanal ko ñaan googu nag jàpp naa ne nangu na parce que doo xoolee Dakar euh, Diouf Sarr moo fa nekk ak euh, ñi fa nekk man jàpp naa ne. doon nañ ay nit ñoo xam ne waruñoo mën a yor bu Dakar parce que nit ki da ngay am ambition si li ngay def loo pare doon loo xam ne loo gëm la wala loo bëgg eh, xam naa ne daal jàpp nañ ne eh, ville bi ñu ville de Dakar nañ ko jël incha allah Sénégal 2035. Barthélémy moom du wax ay waxam quoi parce que kii taxoon na man eh, ku bëgg a xam dangay ngay dem si hôpital nga seeti. kooku moom je pense que yaakaar naa mënu ma wax waxi Barthélémy quoi parce que je pense que yaakaar naa moom na dem wuy ji mercredi ba pare jugee si mercredi ba pare ñu soog di wax waxi Barthélémy deuxième bi Diouf Sarr nit balaa ngay wax dañuy xool li nga def sa commune ba pare te Diouf Sarr mënul présenter benn loo xam ne benn bilan boo xam ne mën na ko présenter si commune bi nga xam ne moom la nekk muy muy muy Yoff. ñun amuñ lenn lu ñu mën a xaat foofu parce que Mame Mbaye bi mu ko def. dafa dem waxtaan ak président ba président ñaanal kon amul lenn loo xam ne je pense que parce souvent dañuy dégg ne moom dafa fekku euh, créer mouvement boppam loolu waaw non loolu amul loolu nit ñi dañuy wax rek parce que lu mu waxtaan ak président ba président yëkkat tàllal mu tàllal loxo président président ñaanal kon li mu réerowu si président waaw réerowu si président benn Euh, loolu nag moom du doon lu mu mën a tontu moom franchement parce que loolu la mu wax président man fekkuma ko man xam naa ne moo président réerawuñ si lenn loolu moom mun naa si mun naa mun naa si wax. Bougane ku mun tey gérer ku mun tey gérer sa boîte nan ngay gérer ville Dakar say employés sax fayoo leen nit ki ku mun ger gérer sa boîte mënoo gérer dara Bougane calculé waa leen Bougane Bougane sax il devait pas xam nga Sénégal moo yomb rek parce que ba ku jug ne da nga soxla réew mi. man man je pense que Bougane warul doon nit koo xam ne dañ ko war a mun a bàyyi sax muy présenté ville de Dakar day wax ne réew mi la soxla. non parce que dafa loo xam ne daal jërul doo koy doo koy wax sax day mel ni nit ki da nga bañ wala dara. man franchement yi war nañ di mun di doomu aadama yi wax te Bougane sëñ Mbacke soxna loo moo ko bonoon président moom loolu wax temps. kon je pense que du demee ba président yàlla dimbali ko mu yor réew mi dafa waroon ànd ak moom si àndu yar ak teggin kon Bougane je pense que li muy def nii day taaral boppam rek quoi. duñ ko doon lépp la ñuy parce que ville de Dakar ni ñu ko yoree baaxul depuis Khalifa Sall man j'ai rien contre wante ville de Dakar ni ñu ko yoree baaxul parce que doo xoolee Dakar bi yëpp gis na Dakar ni mu parce que à l'époque dañuy wax ne Dakar. 2000 comme comme Paris loolu la ñu wax on est 2000 an 2021 bientôt 2022 Dakar lan moo fa changé du président Macky Sall ñëwee sax lañ gis changement yu bëri ak euh, euh, li mu fa li mu fa fa def waaye. am na fa bilan même je pense que même troisième mandat bi ñuy wax nii même population bi du ñu ba si kanam ñu xool je pense que li leen daloon si Ablaye Wade mun lañ bay des Macky Sall. parce que keneen kiy ñëw doo xam lan lay indi. te non troisième mandat mun na ko ne troisième mandat mën na am troisième mandat président. ci ay réalisations si waay si liggéey li nga xam ne fiir na ko si bilan bi si lépp war na war na mën a def troisième nguur gi tànnul kenn tànnul nguur gi yoonam nekkul si problème mu liste parce que souvent état moo demee noonu parce que lu jug rek dañuy wax ne état la président Macky la. président Macky Sall yoonam nekkul si législatif yi élection yi ñu nii. ndax mën nañ xaar suba wala ginnaaw suba nga ñëw wàcc ci département Mbacké ngir fayat ci politique. Euh, pareeguma ko pour Mbacké wala Touba. wala nag en tant que Touba sama grand frère sama mag moo fi nekk di sama jëwriñ ñu Abdou Lahad Ka liggéey liggéey bu rafet si dëkk bi euh, ñu bokk sëriñ je pense que tey duñ demoon ba nga xam ne lu ñuy xëccoo la. man dinaa ñëw taxaw du fekkee ne bàyyi na am comme Abdoulahat yàlla dafa def liggéey bu rafet la fiy liggéey te franchement ñëpp apprécier sëriñ si fi nekk muy sëriñ Sidi Mbacke kon nag euh, je pense pas que amagoon naa idée pour ñëw taxaw pour xëccoog sëñ sëñ Abdoulahat wan lu ko sëñ bi dénkoon nag ma jëw cest à loolu la nit ñi wax wala man sama gis-gis li sëñ Abdoulahat liggéey man je l'ai franchement parce que comme suñ sëriñ fi nekk sëñ Mountakha Mbacké ñëpp nag ak ñeneen ak ñeneen parce que population bi ñooy wax waaye ñi ko dénk taxul mukk rapproché rapproché ko si lenn dara àdduna boo gis rek nit ñoo gis amul kenn koo xam ne cent pour cent dinañ ànd ak yow parce que ñii dañuy ànd ak yow ñii duñu ànd je pense que ñi ko dénk dëkk bi amul kenn koo xam ne am na benn réaction bu ñaaw boo xam ne wala wax joo xam da nga ko jël jëmale ko sëñ Abdou Lahad Ka Euh, Kaolack amul guerre parce que Kaolack candidat bu crédible amul fa parce que Rahma jàngul Serigne euh, commerçant la moom je pense yaakaar naa mu delluwaat si euh, business am moo gën parce que tamit nit da xëccoo loo xam ne njariñ mu ngi si Kaolack franchement gisuma benn kandidaa boo xam ne bu crédible boo xam ne mu ngi Kaolack parce que Kaolack doo xoolee depuis Ablaye Diack dafa doon dëkk boo xam ne lu mel ni Casamance lew na doo xoolee mooy zone résidence yi nga xam ne moom lañ ñu tuddee Almadi wante tey Kaolack mooy ville résion bi nga xam ne moo gën a salté si si Sénégal kon nag je pense je pense pas que ne euh, ñooñu ñooñu ko ma tuddal kenn war na su mën a yor ville de ville de Kaolack. selon euh, xanaa man sama bopp. <laughs> waaw bëgg naa Kaolack waaw. parce Euh, fi ñu yemloo muy Sénégal 2035 mooy Dakar le fur et euh, je pense que si at yi di ñëw dinaa taxaw pour jël maire bi ambition am naa fay ambition politique yu mag comme dañ ñu yemloo Dakar Sénégal 2035 nañ yemagul foofu ko waaw ñëw na fa comme taalibe sa sëñ Abo ñaanal na ko sëñ Abibu sëñ Fallou Cheikh euh, Awbal bu sëñ Fallou ñaanal ko élection yu ñu jëm ni yàlla def mu am si ndam te am nañ si yaakaar parce que sëñ Fallou lu mu ñaan rek euh, dañuy jàpp ne duñ jàpp sax dañuy gëm na lii lu am la kon nag euh, ñëw na fa comme taalibe euh, franchement di ñaan suñu borom Dakar ñëpp wooteel Sénégal 2035 ñu mën a jël maire bi muy commune Ngor Almadi ak euh, ville de Dakar euh, loolu la ñuy ñaan te Mame Mbaye toujours mu ngi si grand président de la République